رضيت عن المولى تعالى الذي ربى وادي واغناني واكرم بي ربا بي قد غنيت اليوم عبدا ذوبي قديما دواما للذي اختاره حبا bi xalxani zul yawm abdan bi zikri wani yakuful rawa nara wa saba nabasul lillahi abdan muratilan li zikrin hakimin an janabil hida zabba ورتلوا ما دمت حيا واكتفي وانفي بابليس عن نعمه دبر اليه التجاري الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه خير خدمه وامته وسلم تسليما اما بعد gannaaw bu nu musal ci seytaane eh, tàmbale ci turu yàlla julli ci ngi sant yàlla bu baax bu baax a baax di sant sëñ Tuba di siyaare bu baax di nuyu dong yëpp di leen siyaare ñoom ñëpp di am mbégte nag tey ci li nga xam ne eh, eh, gouvernement gabonais wala maire Gabon di gabonais jël nañ décision ci décision bi ñu jël ñu décision bu rafet jël mbedd mu toll nii ñu mu toll jël ko tuddee ko Sëñ Touba loolu nag na la lool te neex na sëñ bi nga xam ne man fi yabal di sëñ Mountakha moom Cheikh Mamadou Bachir nga xam ne moo jiite yoonu murit tey di ci am mbégte di sant yàlla bu baax te am mbégte ak rafet njort dina rafet njort bu baax ci jàpp nañ ne taalibe yi seen taxawaay bu rafet ak seen àndandoo bu rafet ak seen dal gu ñu am ci dëkk bi ba waa dëkk bi soupçonné wuñ leen yabuñu leen wóoradikuñ leen rek moo tax seen xel dal ci ñu mën a def lu mel nii kon nag loolu nga xam ne ñoom xam nañ ko ci te moom lañ ci gis muy àndandoo bi ak jàppoo bi ak jub gi nga xam ne yàlla xewal na leen ko fii ci Gabon gisuñ ñu jël alal jàmm gisuñ ñu xuloo gisuñ ñu xeex gisuñ ñu agressé gisuñ ñu def leen loolu moo tax ñu am yaakaar ci yow yaakaar jooju nag yàlla wéy ko gën a continuer bu baax ba nga xam ne moom la borom réew mi bëgg ci réew mi yaatal dem fi loolu gën a mën a continuer gën a mën a sax ci geneen anam itam jàpp nañ ne fii barabu Sëñ Tuubaa la fi amul ci nun la ak sunu Pastef waaye barabu sëñ Tuubaa ndax li fi sëñ Tuubaa def moom meen réew mu ko def gànnaar la fi dem te juróom-ñaari at la fa juróomi at la fa am dellu si waat Sénégal te fii am na fi juróom-ñaari at te fii bi mu fi nekkee dafa toll ci liggéey te gànnaar ba fa nekkee dafa toll ci ñu di ko fay kon nag fii bu fekkente ni ñu war a doxe doxe nañu ko ni euh, def ci li ci war woo ci ñi ñu ci war a woo te ànd koog ñoom te wan leen jikko ji nga xam ne moom la ñu sëñ Tuubaa jàngal incha allah ci seen bopp ñu fekk si ci li ñu def te dana mujj danañ deme deme dem ba waxuma la mbedd mi waaye dañ ko fi tuddee yeneen ak yeneen ak yeneen incha allah da te di ci sunu yéene itam mooy mu dem ba nga xam ne bu taalibe yi murid yi dëkk Sénégal yëpp ñibbi woon it lii moom du fi jóg mbooloo muy toog di tudd sëñ Tuubaa di ko màggal di jàng xasida tey eh, sargal sëñ Tuubaa tey siyaare ji Mayumba ba ak Lambaréné na yaakaar nañ ne loolu loolu lañ yéene ci mu mu nekk xam bu mu yëpp amoon xewal ba ñu bis tey Sénégal itam nekk ay jamono yu fi des di ko def loolu moo ci sunu yéene te loolu nag taxawaayu tey bi rek la mën a amee mooy ngeen ànd ko ak ñëpp te di ci woo ñëpp te di ci waxtaan ak ñoom ndax nit moom benn daf lay xemeem te da ngay def bu fekk la ca wala nga dem ci moom waxtaan ak moom wan ko li nga yor wax ko ci li nga ci xam mu toj xolam mu ñëw ànd ceeg yow yaar yooyu nag lépp mooy yu war la yu nu war la kon nañ fexe ba yaar yu yëpp ñu ànd di ko def wan leen it binum bi jàngal leen ko itam jàngal leen yarub sëriñ bi wa wan leen ko itam ci suñuy jëmm ak suñuy melokaan mooy suñuy comportement buñ ko defee itam incha allah loolu dana am ñuy ñaan nag euh, rek suñu borom def ci tawfeex mu euh, barkeel xam naa ne lu laal sëñ bu moom lu mën a doon aw turam ak jëmam ak lu mu laal ak waaju ci moom lépp lu mën a doon barkeel ci seen waaye du tey ñu ñaan nag muy mbedd mu gën ci dëkk bi mbedd mi fi am barke mbedd mi fi gën a yaatu mbedd mi fi gën a populaire loolu lañ ciy ñaan ndax mbedd loolu lañ ci xam jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum euh, ci ci tënk ci tënk ci kàddu yu wolof nun dañuy ay murit nun ay murit lanu baatu professeur gi sax ñu may wooyee bëgguma ko ndax benn professeur a am ci àddina muy Serigne Touba man duma professeur maanaam ndongo laa benn professeur fi am muy Cheikhul Khadim kon bu fekkee dañoo daje fii ci Libreville ñu koy wax ci olof muy Libreville ci français jëm fu nuy wax Mayomba ànd ak ay kilifa ci ndigalu sëñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te mu yabal fi ab taawam. sëriñ Koso Mbacke sëñ maam Thierno mu ànd délégation bu takku ah soxna Baali Muntaxa yabal fi délégation bu mag soxna Faati soxna maam Faati ak sëñ maam ñu ñëw teew fi fekk si nag waa Libreville fekk fi daayira bu mag a mag a mag boo xam ne dañoo dagaloo nekk benn rek benn say di liggéeyal sëñ Touba ñu ñëw tey ci inauguration boo xam ne bi dañuy ñëw ci jëkk tur bi mbedd mii ñu nekk fii ci deuxième arrondissement fii ci Libreville ñu ci am mbégte di ci sant Serigne Touba di ci sant ñëpp ñi fi nekk nga xam ne ñoo fi daja tey ngir mandargaal liggéey bii ndax liggéey bi ca liggéey Serigne Touba la bokk. na Serigne Touba wàcce woon ca waax ba ca poor ba maam Cheikh Fall boot ko ànd ak moom dem tey jii ni leen maam Cheikh Fall boote yéen ñëpp génn ak yéen fii ndax lii ndax lii ndax nangoon nañ Serigne Touba ab liggéeyam seen kanam kon na ngeen xam loolu noo ngi sant gouvernement gabonais noo ngi sant le la commune de noo ngi sant la maire centrale mais noon ngi sant aussi ambassadeur bu Sénégal fii ci dëkk bi ambassadeur bu Gabon te Sénégal ak ñëpp ñoo xam ne ay experts lañu ay universitaires lañu ay borom xam-xam professeur Allogo ngi nii sama ginnaaw taxaw ci liggéey bu rafet bi ñu liggéey at yi yëpp ngir mandargaal lii nga xam ne mooy mbedd mi ñu nekk. ñuy am mbégte lool nag di fi teew tey di ñaan ci barkeb wa tuuf bi naa wa xawi naa wa kun la naa waab la naa sul xitaami naa wa tuuf bi naa wa xawi naa wa kun la naa wab la naa sol xitaami rabb naa ci barkeb Cheikhul Khadim bis bii ñu daje fii ci ci barab bi rue bi nekk rue bi nga xam ne mooy dàq ci biir Libreville gën cee am solo gën cee am jàmm gën cee am teraanga ah ñu bëgg ngeen xam leen li sëñ bi wax léegi ko Koso wax léegi rek ñaar benn nañu am yëg-yëg ne mbooloo mi fi nekk muy murit yi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 téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert